tur ak sant maa tudd Ablaye Ndaw. xoolal xoolal da ngay xool quartier bi quoi. waaw léegi est ce que mën nga expliquer quartier jàmm gën la. booy bi euh, ni mu jotee ak dóor rakam. mu ñëw di wax ak moom ñoom ñaar ñëpp ay xale lañu. bu mu ñëwee mu dóor xale bi mu ñëw di di ko wax na bàyyi rakam bon si lañ songoo ñoom ñaar ñu daanu. bi ñu daanoo nee na fekk amoon na benn butéel bu tojoon bu samp woon noonu benn butéel bu toj bu samp si la daanu butéel bi jam fi fii booy bi jóg jógee fa la ñëw fii deret bi bari mu daanu loolu la problème bi booy moom nee na jàmm fii nag problème bi fi mooy booy yi dañuy dugg si àll bi di wut ay jaa di wut di wut ay laalu di ko jaay looloo waral booy yi nga leen di gis ñu yor ay arme ay paaka ay jaasi parce que si àll bi la ñuy dugg ñu defuñu dara fii la ñuy ne yi taxawaalu jënd seeni sareetu mbaam di dugg si àll bi di wut ay laalo bu ñu daggee seen laalo ñëw takk ko ay cent fukki dërëm franc génn fii di ko jaay xam nga voilà noonu la demee des fois ñu xeex xam nga ay xale bu ñu yoree ay jaasi armo bu ñu merantee mën na nañoo xeex goronte wala ñu def leneen xam nga loolu mooy wax ji mais sécurité moom amul fi amul fii parce que ay xale lañu ta xale warul yor arme blanche pas normal xam nga ay xale lañu fu ñu xeexee rek ku nekk day gën a jaasi taxaw wane sa doole xam nga te xale du xalaat mën naa jékki-jékki rek jam ba pare ngay doog rendre compte jam nga booy bii li dal du coobareem man xam naa ko xafam c'est mon ami xam nga mosuma koo xamee sax ay paaka ay sa xëy na erreur la mu jam ko ndogalu yàlla suñu borom yàlla moo ni woon ne dina décédé xam nga mu décédé mais man xam naa ne du coobareem xam nga mais nag fii moom il faut ñu jóg fii ñu wax ak xale yi ñu moytu du yor ay arme blanche jaasi xale moo ko dul yor xale bu yoree jaas su meree mën naa def erreur xam nga après moom du sonn mais ay parents am ñooy sonn ah. parce que kii déjà xale bu ndaw la amagul sax 14 ans mais papaam lay sonal ay yaayam parce que ñoo fiy dugg di génn fu nañu dugg fa kon ñun nag waxewuñu lii pour booy pour pour pour pour indil benn benn benn problème benn booy dañuy wax lii parce que suñuy rakk lañu suñuy jarbaat ñoo fi nekk ak suñuy doom kon nu ñu mën a waxee rek ba koñ bi di am jàmm parce que tey gis nga fii ñu waroon a xëy sa xëyuñu ñëpp a ngi taxaw di setaan te buñu sañoon lii du fi am te yàlla na yéex yàlla bu mu fi amati mais nag dañoo bëgg autorités yi jël seeni responsabilité di ñëw fii di ñëw di di di ñëw di nemmeeku fii ñi fi nekk il faut ñuy def ay raaful xam nga ku yor jaas ñu jàpp la yóbbu la bu ñu ko defee ñaari yoon ñetti yoon benn booy dootul doxantoog jaas xam nga li ñuy ñaan mooy autorités yi nañ fi ñëw di ñu rondal suñu koñ bi parce que fii amul sécurité àll bi gis nga amul sécurité sàcc yi dañuy dugg fii sàcc jéggi raay bi dem kenn du jegi ak yeneen ak yeneen keroog daaj nañ bitigu bala si ay ay gars yi fetal lañ génne taxaw fii rek bëgg di renteeg waa koñ bi dañoo jéggi bi daw kenn mu leen a jàpp kon ñu ngi ñaan autorités yi ñu indil ñu fii ñu ñuy defal ay rond fii ñun ñun tamit ñu nekk ci sécurité. waaw salaamaaleykum wa rahmatulah.